إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما fatxul mubin cheikh ahmadou mbake maawul xayaat taxawal ko fii ci Touba quartier taybatul karim maawul xayaat héliport daloo nañu ko ajjuma fukki fan ci 2023 ci ndigalu sëriñ Mountakha Bachir xalif général des Mourides yabal fii sëriñ Mouhamadou Fadal Mbacke moom sëriñ Abdou Khadr Mbacke mu jiite jullik eh, jumaa ju njëkk fii ci jumaa ji nekk Taybatul Karim bi délégation Serigne Mountakha Bachir Mbacké agsee ci njiitalu Serigne Fallou Mbacké moom Serigne Abdou Khadir imam Cheikh Ahmadou Mbacké Maawul Xayaat gàttandu ko ak mbooloo mu yaatu tatagal ko ànd ak moom ci biir dal bi Cheikh Ahmadou Mbacke Maoul Hayaat di saafonte ak kilifa yi ak gan yi kenn ku ci nekk ñu jox la sa wàccuwaay yi dal leen tatagal leen ci bésub lislaam bi di bésub Serigne Touba fii ci Touba quartier Taïbatul Karim Maoul Hayaat héliport muy bésu lislaam di bés yoonu murit gépp mbooloo mu takku bàyyeekoo fii ci Touba waaye tam bàyyeekoo ci région yi nekk ci Sénégal yépp ñëw wuy si wooteeb lislaam bi bi mu jaarale ci Cheikh Ahmadou Mbacké Maoul Hayaat kilifa ak yoonu murit gépp ñëw fii ci Touba quartier Taybatul Karim Maoul Hayaat héliport ndokkeel ci Cheikh Ahmadou Mbacké Maoul Hayaat ku ci ñëw sëriñ bi gàttandu la tertu la tatagal la جهل سواچوا يب bés bii di bésu cant Cheikh Ahmadou Mbacké Maawul Hayaat boole ko ak consultation médicale gratuite boole ko ak maye garab ci jaam yàlla yi bàyyeekoo ci biir Touba waaye bàyyee bàyyeekoo itam ci biir senegal ngir ñëw jël si ci xéwal yi ci bés bu màgg bi di bésu ubbite juma fatxul mubin fii ci Touba batul Karim Maawul Hayaat héliport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 أشهد أن وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم وأكد شيخنا أحمد الخليل رضي عن الأول الآخر والباقي القديم فرضية الصلاة وما كانت لها خطيرة جدا في الإسلام قائلا قد صح أن الصلوات الخمسة فريضة حكما مقيت لبسا بالذكر والسنة والإجماع فمن يكن منها على امتناع جهدا لها فهو كالمرتد في الحكم يستتاب دين العبد فإن يتب يترك وإن لم يتب نقتله بالسيف بطرد الرقبه إلى آخر ما قال في حق هذا الرجل من إرماله من الغسل والكفن والصلاة عليه ودفنه في المسلمين واستقبال القبلة به وغير ذلك من حقوق أموات المسلمين وقال أيضا واعلم بأن أفضل الطاعات صلاتنا في أول الأوقات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 لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة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 السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ginnaaw waxtu julli jumaa gi ba noppi am na waxtaan wu am solo wu fa am ñu ànd ak yéen dégtal leen ko. amiin. ginnaaw bu nu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. feddliwaat sunu yaakaar Seexuna Ahmadul Xadim ñaanal njabootu sëriñ yi gi sunu borom dolli seenu wér gën a guddal seenu fan te tàmbalee ko ci Cheikh Mahamadul Muntaxa euh, sëriñ Falilu moom Cheikh Abdul Xaadir Mbàkke mi nga xam ne tey jii mooy jëwriñi liggéey bi ndax sëriñ Mouhamadou Mbàkke mii nga xam ne moo di doomi sëriñ Moustapha moom sëriñ Modou Ajara mi liggéey liggéey bii ci teewaayu ay kilifaam sëriñ fàllu mii toog ak njaboot gi yépp dafa wax na liggéey bi lislaam la ko doon liggéeyal jaare ko ci sëriñ Touba bi mu noppee teg na ko ci loxol ki dox digganteem ak sëriñ Touba muy sëriñ Seex mu sëriñ Saaliwu mu tegaat ko ci loxol sëriñ fàllu ci ndigalu sëñ Muntaxa kon mu wax ne moom amu ci benn baat ak genn kàddu ndax day liggéeyal lislaam rek di liggéeyal sëriñ Touba sëriñ fàllu nag moo yëkkati kàddu gi jox ko alxaaji Fàllu bu sa ñanga mii mu fa yéenee wax ci aw turam kon sëriñ Ahmadou Mbakke ak sëriñ Fàllu kilifaam gis nañ mbooleem kilifa yi fi teew yépp donte seen loxo nee na jotiwut ci maslaak ñépp xam nañ ne lislaama leen tax a jóg sëriñ Tubaa leen tax a jóg xam na it liggéey bii mu doon liggéey lislaam moom ñoom ñoo ko bokk da leen cee wutu woon kepp nee na ba mu noppee mu teg ko ci loxol sëriñ Tubaa noppi na ci moom ñoom ñoo ci yem kepp kon ñu baye kàddu gi ak sëñ assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sëriñ bi mu ne assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ci ndigalul sëñ Mouhamadul Fadil mbake ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Fadil mbake mi nga xamne mo doon jité juma ji. mi nga xamne mo jité juma ji. ñi ngi leen di nuyu. neena ñi ngi leen di nuyu. di leen sante di leen sante te di leen gërëm. te di leen gërëm. ci téway bi nga xamne ci téway bi nga xamne ne. nañ ko ci barab bi teew nañ ko ci barab bii. di joxe àq joo xam ne ji. di joxe àq yoo xam ne. farata la. farata la. sunu borom santaane. ju sunu borom santaane. mu ngi leen di nee na Serigne loo ngi ñuy jaajëfal. te leen sant. te di ñu sant. tey ñaan ci barkeb Serigne Touba. tey ñaan ci barkeb Serigne Touba. yàlla nangu jëf ji. yal na yàlla nangu jëf ji. ak ya ko jiitu woon yëpp. ak ya ko jiitu woon yëpp. ak yi ñëw yëpp. ak yi ñëwaat yëpp. barkeb Serigne Touba. ci barkeb Serigne Touba. Serigne Fallou nee na. Serigne Fallou nee na. mi ngi sant bu baax yàlla. mi ngi sant bu baax sunu borom subhaanahu wa taala. ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Serigne Touba. ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul. Serigne Mountakha mi nga xam ne. di sant nag Serigne Mountakha mi nga xam moo fi Serigne Touba tey. moo fi Serigne Touba tey. tamate ko te mate ko. ak mboolem ay rakkam yëpp. ak mboolem ay rakkam yëpp. ñi mu bokkal Serigne Touba. ñi mu bokkal Serigne Touba. mi ngi sant Serigne Fallou Serigne Modou Mbacke mii. mi ngi sant Serigne Ahmadou Mbacke mii. mi nga xam mi nga xam ne. taxawal liggéey bii. moo taxawal liggéey bii. muy liggéeyub yàlla. muy liggéeyub yàlla. di liggéeyub Serigne Touba. di liggéeyub Serigne Touba. defe ko fu ñu ko war a defee itam. defe ko it fi ko war a defe ko itam fu ñu ko mat a fu mat fu mat a amee na fa. defe ko it foo xam fu mat a la te amee fi ndax Serigne Touba. ndax seriñ Touba. ba muy sanc dëkk bii. ba muy sanc dëkk bi da koo sancoon. da koo sancoon. ngir jaamu yàlla. ngir jaamu yàlla. ak liggéey. ak liggéey. jàng. jàng ak jàngale. ak jàngale. kon képp koo xam ne. kon képp koo xam ne. yaa ngi tabax jàkka. yaa ngi tabax ay jàkka. yaa ngi tabax i daara. yaa ngi tabax ay daara. yaa ngi ci liggéeyub sëñ Touba. yaa ngi ci biir liggéeyub sëñ Touba. sikk néew ci ne. sikk nag nekkut ci ne. ku ko def ku ne. ku ko def ku ne. am nga ngërëmul sëñ Touba. am nga ngërëmul sëñ Touba. leneen ngay def kay. leneen ngay def kay. di sikki sàkk gëm na gërëm na ko gërëmu ko. di sikki sàkk ba xam gërëm na ko wala gërëmu ko. waaye li ko taxoon a jóg. waaye li ko taxoon a jóg. mu nekkoon ci. mu nekkoon ci. di ko digle. di ko digle. ku ca nekk. ku ca nekk. yaa ngi ci ndigalam. yaa ngi ci ndigalam kon yàlla nañ ci yàlla saxal ñun ñëpp sëriñ Modou sëriñ bi nee na sëriñ Modou sëriñ bi nee na sant na la bu baax sant na la bu baax gërëm na la bu baax gërëm na yëngutu yi bu baax yëg na it yëngutu yi bu baax lépp lépp lépp lépp dara génn ci yàlla. dara génn ci yàlla. yonent bi yonent bi. ak Serigne Touba ak Serigne Touba. tabaxi daara. tabaxi daara. tabaxi jàkka. tabaxi jàkka. loolu moo ëpp ci liggéey bi. loolu moo ëpp ci liggéey bi. kon nag loolu yàlla ko yàlla nangu. kon loolu ngay def yàlla na ko yàlla nangu. barkeb Serigne Touba ci barkeb Serigne Touba. mi ngi sant nag mboolem kilifa yi fi teew yëpp. mi ngi sant nag mboolem kilifa yi fi teew yëpp. kon jarut lim. ni ñu ko waxe won nyep rek. ni ko waxee woon léegi. ñëpp sëriñ bi gis na leen. ñëpp sëriñ bi gis na leen. kër yëpp ñu ngi fi. kër yëpp a ngi fi. wa kër sëriñ Tuubaa yëpp a ngi fi. wa kër sëriñ Tuubaa yëpp a ngi fi. wa kër sëriñ Fallou ngi fi. waa kër sëriñ Abdou Lahat. kër sëriñ kër Abdou Khadir. kër sëriñ Tuubaa yëpp a nga fi. kenn desut. kenn desut. kon sant na kon gërëm na ñepp di denk nak di dénk nag. waa koñ bi nga xamne wa koñ bi nga xamne fi lañ defé juma ji. fi lañ leen defalé juma ji. ñu xamne ñu xamne amatu ñu aw lay amatuñ nag aw lay ci ñàkk julli ji ajuma ci ñàkk julli ji ajuma na la farata la joo xam ne ji ndax xam nañ ne farata la joo xam ne képp koo xam ne kii képp koo xam ne kii juma daa am juma daa bu rëy nga def képp koo xam ne kii amna ñetti aljuma amna ñetti aljuma yo xamne ne tegale nako yo xamne tegale nako ta amul ngaan. ta amul ngaan. dañuy bolok ay jaamu yàlla. dañuy wax ne dañuy boloke ay jaamu yàlla. waliyaasu billaahi bi taala. kon nag ngaant amatut. kon ngaant amatut. yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena dafa am ben ci man de damaa jege jàkka ji. de gi. danaa dégg nodd julli ji. ndax ma womat. yonent bi jox ko ruxsu ak ruxsu ci bañ a julli ji a julli ji waaye ginnaaw ba mu demee bay génn waaye nag ginnaaw ba mu demee bay génn mu woo mu ñëw mu woo mu ñëw mu ne ko ndax da nga dégg nodd gi mu ne ko ndax da nga dégg nodd gi mu ne ko waaw mu ne ko waaw waaw kon wuy jil mu ne ko kon wuy jil kon tegtal la ci ne kon tegtal la ci ne ñàkk julli ji ci jàkka ñàkk julli ji ci jàkka musiba la musiba la ci képp koo xam ne amoo ci képp koo xam ne amoo ngaan a a bi sallallahu alayhi wa sallam na لا صلاة بجار المسجد بجار المسجد إلا في المسجد إلا في المسجد koo xam ne kii. koo xam ne kii. dend nga ak jàkka ji. dend nga ak jàkka ji. ñu nodd. ñu nodd. nga mën a julli ji. nga mën a julli ji. te julli ji woo. te julli ji woo. amoo julli. amoo julli. kon loolu nag ab dénkaane la boo. kon loolu ab dénkaane la boo xam ne. soññe la boo xam ne. nañ fonk jàkka bu baax nañ fonk jàkka bu baax. li tax nag sëriñ bi gën a farataal wax jooju ci jàkka. tey jàkkaa xewle. tey jàkkaa xewle. daara xewlewut jàkkaa xewle. daara xewlewut jàkkaa xewle. waaye daara ji nag jàkka ji la taqalool. moo tax li ñu wax ci jàkka ji. yittewoo ko xam ne julli jàkka. yittewoo koo xam ne lislaam yittewoo na ko ci julli ci jàkka. ba ba benn julli jàkka. ba genn julli jàkka. mat ñaar fukki julli ak juróom-ñaar. ma mat ñaar fukki julli ak juróom-ñaar. ci julli gudut ci jàkka. ci julli gudut ci jàkka. kon loolu kon ëpp naa bàyyi xel. kon loolu ëpp naa sàggane. loolu kon ëpp naa sàggane. kon sëñ bi na ngi sant ñëpp. kon sëñ baa ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp di gërëm ji xat na. jamono ji xat na. naaj na naaj na. waaye ñu ngi xam ne daal sant na ñëpp. waaye daal na ñëpp xam ne sant na leen. sant na ñëpp gërëm na ñëpp. sëñ Modou it sant na ñëpp gërëm na ñëpp. ndax daa woote ngir yàlla. ak Serigne Touba ak ñëpp ñëw ñëpp ñëw. kon nag mënul lu sant leen. kon mënul lu sant leen. ak gërëm leen ak gërëm leen. jiital ci cant gi nag. jiital ci gi nag. mbooleem kilifa yi fi teew yëpp. mbooleem kilifa yi fi teew yëpp. tàmbale ci Serigne Fallou mi nga xam ne. moo jiite jàkka ji. moo jiite jàkka ji ak kilifaam yi fi nekk. muy Serigne Fallou Mbacké mi ak jiili ak ak Serigne Cheikh Ibra ak mbokk fi nekk yëpp rek sant na ñëpp gërëm ñëpp lot nañ ci waxe nee na lott nañ ci jottali kàddu yi ni ko sëñ bi waxe woon waaye ñu mottalee ko yéene ji waaye ñu mottalee ko yéene ji rek jërëjëf sëñ Fallou sëñ Fallou mii daa mbokk mu nekk fii moo xam ne daa yóbbante woon ay kàddu balaa sëñ bee yëkkati kàddu nga dégg mu jëm ci sëriñ Modou Mbacke mii di sa rakk te ngay kilifaam ginnaaw sëñ Fallum sëñ Abdou Khadir nga fi ñu di ko wax sëriñ Fallou Mbacke Mané daa dégg liggéey bi ba noppi xool ko wax ne miinut sëñ du de waaye moom jëf ju baax da koo bëgg moo tax ba mu gisee jumaa ji dégg ko mu yóbbante woon ma ay kàddu ci moom ba noppi yëkkati tànk boppam nag na danaa dem ba ci liggéey ba muy sëñ Galas Mané loolu nag kon baax na nga xam ko yow mi kilifaam waaye sëñ Modou it xam ko kon ñu déglu sëñ Fallou. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nee na bokk jullit yi fi teew. noo ngi leen di nuyu. te di len ziaré te di len massaw te di len dalal jam ci pak bu tedd bi ci barab bu tedd bi nga xamné ni yalla rek motax ñu woté won ko ñoo ngi wax nak ci turu seigne Fallu Mbàkke mi nga xamné moy khalifa seigne modou adjara mak ci seigne modou seigne bi wax na né sant na gërëm na ñëpp mi ngi ndokkal ñëpp it ndax li ko waroon defal ngeen ko ko bi mu wootee ngir yàlla woote ngir sëñ Touba woote it ngir liggéeyal sëñ Touba ñëpp wuy si nañ ko ñu ngi jël ci cant gi nag Cheikh Mouhamadunil Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi ca wër di ñaan ak dundam gën dolli ko bu wér ak mbooleem kilifa yi nga xam ne dañoo bokk ci liggéey bi muy sëriñ Cheikh Saliou ak sëriñ Fallou mii nga xam ne moom sëñ Abdou Khadir mi nga xam ne moom lañ santoon mu ñëw taxaw liggéey bi sëriñ bi nee na njaboot gépp a nga koy ndokkeel waa kër sëñ Modou Ajara gépp a nga koy ndokkeel waaye daal na xam ne na seen maam ya ànde woon ak sëñ Touba loolu rek lañuy ñuy feddali ci yoonu murid wépp ñi nga ànd ak ñëpp ci lépp di leen woo waxtu wu ne ànd ak ñoom ci li ñu nekk ndax mu di taalibe rek moom la suñu maam yi nekke woon ak bëgg lu baax ak taxawu diine kon ñi ngi sant ñëpp di dalal ñëpp waxtu wee xat lool waaye bëggoon nañ mu gën a yaatu waaye ñoo ngi sant tey gërëm di ndokkeel jullit yëpp te di leen baalu àq ci coono yi ak toogaay bu yàgg bi waaye di ñaan suñu borom di ñaan képp ku fi jullee yàlla defal la tawféex te mu nekk barab boo xam ne yàlla bokk ci barab yi yàlla gërëm sabatani allahu ya xannaanu bi jaayihi ya baru ya mannaanu madatani cheyan bi il تكون لي ويسكت الجنان أذهبت كل ما به العصيان يجيني غيري إنك الديان نفيت ضري ورد يا رحمن عن الذي سمعته عثمان نفيت ضري ورد يا رحمن عن الذي سمعته عثمان علي علي من ربي بالمخفي وسم باءك إلى علي لجلب بعلم نافع سني وعمل وادب مردي يا ربي مني يتقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا رب سخردا إلى علي سخ ما شئت من مخفي يا رب سخردا إلى علي سخ ما سقت من مخفي أهل بدر أسألك اليوم بأهل بدري فليستجب بهم وأهل قدري هب لهم الرضا وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخي الذي تولى حجري في البحر روض قادر سي سجري بدل بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر واعصمني بهم من ضري ربي يكن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم قدري ربي كن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم قدري جبريل جاء الأمين من إله العالمين kilifa ak yoonu murid gépp ñëw fii ci Touba quartier Taybatul Karim Maoul Hayaat Héliport ndokkeel ci Cheikh Ahmadou Mbacké Maoul Hayaat ku ci ñëw sëriñ bi gàttandu la tertu la tatagal la jox la sa wàccuwaay yépp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 في كل شيء لي خلت البشر كون بمن به تجود بمطر كوني فوق كل باغ ذي بطر أجب به لي وزغزه الكدر ولتتقبل كل ما مني صدر آتيتني الآيات ربي والصور فليهب شكرا بها بلا خور يسر لي الحضور ربي والسهر بجاه من كوني خديمه واشتهر لك به وبالذي صب المطر توجه فبه ما سعل الوتر لك به وبالذي سب المطر توجه فبه ما سعل الوتر إسرافيل أنلني البشرى مع النسور بنافخ يوم الجواف السوري سغلي به ذا سروري بك بلا مكر ولا غرور ذلي به الأيام كالشهور وما أشاه من كذا طهوري أبقيتني ربي بلا سبور والنشر والحشر مع القبور فجأتني يا ربي في البحور بما به حس مغور الحور يسرت لي الشكر بلا كفور وليربت كل ذي نفور لك توجهي بالمنصور وبكريم نافخ في السور لك توجهي بالمنصور وبكريم نافخ في السور عزرائيل علي بعزرائيل سقما ظلما إلى سواي باقيا وعلما زدت أماني والرضا والنعما يا باقيا ليس يزال منعما رددت للأعداء قطع الموت عام الوباء يا سميع الصوت أبق حياتي به مسرورا والتقني الحساب والغرورا آتني الدارين خير حسنات واجعل به كليتي مستحسنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على رضائه أهيم فقد توجهت بجاه المجتبى وجاه عزرائيل جلي باتباع لك توجهت بجاه المجتبى وجاه عزرائيل جلي باتباع maa ngi santal mbooloo mi yépp sëriñ Muntaxa ndax moom lañ defal liggéey bii doonuñu ci dara yàlla du ko feeñal ci noonu rek biñ ko ko jébbalee it ci noppi moom mbokkam ma sëriñ Cheikh mu sëriñ Saliou kon mbooloo mu fi teew yépp noo ngi leen di sant noo ngi leen di gërëm muy bokk deret muy bokk lislaam muy bokk dëkkandoo muy bokk réew mi cant koo xam ne day am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem seeni xol da ngeen jëfe seeni jikko yi ngeen jëfe ju rafet seeni xol yu set moom ngeen jëfe waaye man de xam naa ne yëllowuma ko ci lu ma leer ndax may jaamu yàlla bi gën a doy di ci jaam yi ab dongo sax dama koo mët a te moom laa bëgg a doon kon noo ngi sant mbokk yi fi teew yépp bu ñu waxee Cheikh Mouhamadul Mountakha yóbbaale na yoonu murit yépp këri këri këri këri sëriñ Touba yépp genn kër desut kër maamaaram yépp génn kër desut seexi sëriñ Touba yépp kenn desut ñëpp dikk nañ ci suñ bokki lislaam yépp ci réew mi it ñëpp dikk nañ kon noo ngi leen di sant te di leen gërëm te di leen ñaanal yàlla nag mi nga xam ni lii lépp ci coobaram la amee mënoon nañoo bëgg mënoon nañoo yéene mënoon nañoo bëgg a dem te du ci sottal dara ci lu dul coobareem bi ñu amee ak bëgg bëgg googee yàlla la ndax bu nu amalutoon du nu amuk bëgg moo nu amal ban mën a bëgg yàlla moo nu xiir ba liy jëmm lépp moom la doonuñ ci dara kon taxawaay bu ci nit am rekk yàlla mi am kàttan ak tawféex yàlla na la taxawu fii taxawu la fële képp koo xamante ni tey jii teew na ci barab bii yàlla na sa njëggal gu sax dakk dakk dakk dakk ci li nga weesu lépp ci zahir ak ci batin te li ci sa kanam lépp it di tawfeex ak jàpp ndal ci lu nëbbu ak ci lu feeñ képp ko amoon yéene dikk it yal na ko yàlla tàbbal ca loole ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawfeexam ak ndimbalam Cheikh Mouhamadul Muntaxa na nañ ci moom mbég moo xam ni dem na dayo ameel nañ ko cant goo xamante ni it dem na dayo rawatina jëwriñ ji jëwriñam jëm fi yónnee Cheikh Mahamadou Fadal moom sëriñ Abdoul Khadir ak bokkam yi fi teew yépp su ma limee damay juum waaye li ma wax léegi rek ñëpp kenn desut ci dëkk bi ci ludut am na ku fa bàyyi ko ku leen teewal fii liggéey bi nag seenub liggéey la ñoom ñoo ko moom man doonuma ci dara dañ ma doon liggéey loo liggéey bi noppi na jébbal naa leen ko noppi naa ci maa nga ca leneen man ndax lii kët du asakay suñu yéene te damay wax ni jullit bu man di doon ci kaw suuf sa yitte nay jullit bu mas a taxaw ci kaw suuf lu mu jëf ci lislaam amal yéene jëf ja yàlla nag mooy sottal mooy mottali waaye nit kaw kawe yitte nit day kawe pas-pas bul ni nanga mënuma ko ku naan nanga mënuma ko doo ko ma sama man mukk del jéem ku jéem te sellal yàlla gàttandu la ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawfeexam noo ngi yeesal noo ngi yeesal sunu lu ci yàlla noo ngi yeesal sunu sant yàlla noo ngi yeesalit jaayante gi nu jaayanteeg Serigne Touba Xadimal Moustapha te fas yéenee doon ab liggéey laa ko noonu ci lislaam ba sunu ruux di teqalikook sunu jëmm ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawfeexam ci loolu lañuy nekk tey ci lañuy nekk ëllëg te duñ ci mës a ba keroog ñuy sàngoo suuf noo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawfeexam bokki bi yi maa ngi leen di dénk kum doon ci nun na wéetal yàlla na dëggu na dëggal nit day dëggu nit day dëggal nit day jub nit day wér nit day wax dëgg ab jullit du fen ab jullit du rambaaj ab jullit du rëy ab jullit du du boppam ab jullit du añaane mbokkum jullitam lu baax ci jullit bu mu feeñ jullit ñëpp ko bokk jullit ñëpp ko moom kenn lu baax ñëpp ko bokk jullit ñëpp ko bokk nañu wattandiku tooñ nañ jéggale ak tooñ nañuy jëlale ak tooñ jëf yi matale na lool fa tabaarakallaahu macha allah kon maa ngi dénk sama bopp te di leen dénk fuñ na nañ doon takk ndeeru rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam doon takk ndeeru sayxinal xaddiimi ci nangoo jaamu yàlla gannaaw ba ñu ko wéetalee xam ne yàlla moo nu bind moo nu moom moo nu melal moo nu kattanal moo nu fi indi te moo nu fi bàyyi bu ñu ragal benn jàmm dox ci kaw suuf mënul tu ci nu lu tol ni dee dee wex man tànna xayrallahi yuxni aw yadul fadaaka fi daarin soo kat din wadul ay jariñe yàlla moo mën a lore it bu ñu bëgg aw tagg mukk man de ñëpp naan kii ab saay saay la ak moo fi gën ñoo yem ci man képp xam nga li na fi mën a li ma yëg ci sama dënd bii sama diggante ak sama borom lu dul loolu yëguma ko dunduma ko it nag moo fi gën ak moo fi yées ñoo yem ci man képp yàlla bi may bind ci pepp ndox la ma bind jaarale ma ci lumbu darat def ca ay suuf def ca ay yax def ci ay cër ba ma toog fii mën a wax ay nit di ko dégg ku ci fekk yàlla leneen lu namm ci man beneen jàmm ko ku mën a tere loola am lu mu ci man ku mën a fexe ba loolu agsi nun ñëpp na nekk foofu yàllaa nu mënal tey moo nu mënal ëllëg li Cheikh Abdoul Ahad waxam ne ku fekkul yàlla nga bëgg wéeru itam da nga ko bëgg a tooñ képp nan wéeru ci yàlla nañ wàkkirlu ci yàlla nañ wéetal yàlla nañu jaamu yàlla te jëmm yàlla ji rekk tax buñ xool ku ñuy won gannaaw buñ xool ku ñuy tagg buñ xool ku ñuy jublu buñ xool lenn nañu rafetal suñu njort ci bindee fi yàlla yépp nag dama leen wax ni boo gisoon nit di jóge ca baar ba di génn di tërëf sa yoon bu ci nekk diggam ak boromam la boo gisoon keneen ne ca lu war a nekk sa yoon nekku ca digganteem ak boromam la soo ko mënee labiire rek labiire ko ci yar ak teggi na ko dal te yàlla tax man mii xawma ci lu may mujj lii def ci jant bi damaa xam lu yàlla na mu ci man damaa xam lu muy def ci man fii suba lu ma ci xam nun ñi ci des luñ ci xam loo mën a mën a jaamu yàlla bàyyil xel yàlla yàlla coobareem dong lay jëfe ci ñëpp lii lépp mën ngaa ànd def ko boo liggéey yàlla lu ko neex mu teg la ko keneen defut dara boo liggéey yàlla lu ko neex mu defal ko yoo xam bu ma yesa wa yaxawiru li ma yesa lépp ci coobareem dong la tege jamono jii nag ju naqari dund la li ko yàq baat boobu ñuy wax dóor lépp lu ñuy def ci lu baax ñu ni diw daa mën a dóor diw day dóor diw dóor nangam loolu fen dong la maanaam nit kuy fen képp te loolu war nañ cee baxel léegi nit ñi dañoo tàmm wax lu dëgg ba jàpp nañ ni kenn dootul wax dëgg jàpp nañ ni kenn dëggootul dëgg fa mu nekkoon ba tey am na garab nga faw ba tekkee fekk fa ay nit ñu toog fa te daray na du leen jaral wax lu dëgg maa nu jëf ko nan nekk foofu te bañ faa jóg nan wétli ko yàlla yàlla dong it moo mën a wétli ku dul yàlla matul wettal mbooloo mi fi daje tey li ñuy bari bari bari bari bu gënnaaw subaa boo dikkee doo fekk kenn kenn ku ci nekk ma nga ca ruq ba mu ñu ni fi yàlla indee ci kenn kenn it kenn kenn lañu fiy jëlee nun ñëpp réew mi nu ko dëkkee nañu rafetal ci suñu diggante te yàlla tax bindeef bu ne dee rafetal sa njot sa diggante ak sa mbokkum sa mbokkum nit laa wax sa mbokkum nit gis nga yow miy jullit li nga gëm ba jàpp ko ba téye ko keneen kër ab jullit la mu gëm noonu la ko jàppee noonu la ko téye kay gëm leneen noonu la ko jàppee noonu la ko téye te nun ñëpp boroomi xel lañ kenn ku ci nekk ak fa ko yàlla jëmale boo liggéey nag yàlla moo nuy àtte mënu noo àttante suñu bopp mënu ñoo siisante suñu bopp nun ñëpp ëllëg yàlla dana nu dajale fa kanamam kenn ku ci nekk la yàlla ci yow xam na ko lam war a def ci yow xam na ko lam lay def xam na ko lam lay defal xam na ko waaye li nu war nun mooy lim nu digal ñu ne ca lim nu tere ñu di ko teet suñ juumee ba def rëcc rëcc ñu tuub la ñuy jaamu ci yàlla ñu bañ caa gis suñu bopp te gis ko ca moom yàlla mënu ca xiir rek maa ngi digal ñëpp ñu wattandiku tooñ di jéggale tooñ te di ko jëlale te noppi suñ làmmiñ yii nañ ko noppi ci luñ xamut toujours yaa ngi wax ci loo xamut dara yaa ngi déglu it koo sa déglu ci mbir nit da ngay ubbi say bët di xool la nga yëg nga jàpp ko te yàlla tax loo mën di dégg ci sa moroomum nit ni ma ko ni ma waxee léegi lu mu mën di jëf maandu ca sëyum nekku ca nañu rafetal suñu digganteeg wayjur yi nañu rafetal suñu digganteeg dëkkandoo yi liñ bëggal suñu bopp nañ ko bëggal bindee fi yàlla yépp bu ñu yéene kenn lu ñaaw bu ñu ko wax kenn bu ñu ko jëflanteeg kenn te yàlla rek tax baril jàng alxuraan baril tudd yàlla baril jàng baax de waaye nañ làmb suñu xol yi ba xam dara ci ci bu ci dara ci réy nekkee doonu jariñ dara nañ làmb suñ xol yi ba xam dara ci kañaa nañ ci nga xool sa mbokkum julit yàlla def ci moom coobareem nga ne lu tax nga di ko jàpp ci sa xol yemoo ca nga di ko wax ci sa làmmiñ yemoo ca nga di ko jëf ci say cër li ngay julleeg li ngay jàpp ak li ngay jàng ak dara moog dara yam wax lu dëgg loo mën a mën a jul loo mën a mën a war loo mën a jàng du dikk dara jëf bëgg ñu di ko tudd noonu njistali noonu di jëf ngir nit ñi déedéet nañuy jëf te yàlla rek tax lu waay am nañ ko ko yéene ba mel ni nun noo ko am jataay bi xat na te dañoo yendoo toog te am na ñooñ fañ jëm sori na na ngeen xam ne daal fa cant tàmbalee fa lañ tàmbalee ñëpp képp ku fi teew ak ñu amul yéene teew ci teewuñu foofa la soro cant tàmbalee jëm si ci yéen cant googee nag ma di ko wax ci tur turu Cheikh Mouhamadul Mountakha mu jëm ci bokk yi yëpp di ko wax ci tur Serigne Saliou ak katooge ca bopp ba ak ci turu yoonu murid yépp ak ci turi jullit yëpp ak ci turi ñu dëkk réew mépp réew mi dëkk yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na yàlla ubbi xol yi delloosi ko ba kenn ko ci nekk yàlla leeral xelam balay jariñ ci wax ak jëf ak melo mu nekk ca te lépp lu yàq mu teet ko sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp yàlla na nu saa borom taxawu yàlla na nu saa borom sàmm yàlla na nu yaa borom aar yàlla na nu sa borom dimbili ku ne la mu bëgg ci boppam ko njabootam yàlla na ko ca defal lu kawe njortam ku ne lam ragal ci boppam ko njabootam yàlla na yàlla dox digganteem ak loola aajo ju fi way indi yàlla mi ngi koy dégg mu ngi lay gis te xam ne li bëgg li nga bëgg xam ne li gën ci yow yàlla na la ko yàlla wamatal tam seddi gu nga am ca tawfeex ak sutura suñu indi yëpp nañ fexe muy yàlla rek bu ñu amee yàlla danañ am lépp ndax yàlla téye adduna téye àllaaxira liñ bëgg lépp ci loxol yàlla li nekk kon nañ ko wuti moom rek te bañ ko boole dara yàlla doon yàlla defal ko rafet asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf mbokk jullit yi mbokki taalibe yi mbokki seetaankat yi ginnaaw bi su ubbi tek juma fukki fan ci weeru caatum ci atum 2023 ci taxawaayu cheikh ahmadou mbàkke maa ul bi ànd na ak lenn ci njaboot gi dem ziyaare ji Cheikh bashir ye salat cantam bu baxa bax ndax Cheikh Mountakha bashir taxwayam ci bés bi lu muccu ayib la lu rafet la Cheikh Ahmadou Mbacké wal khayat tudde ko tout tànk jëlaat ko jébbal ko Cheikh Mountakha bashir Cheikh Mountakha bashir ñaanal ko sante serigne bi dollawaat ko ko dénk ko ko mu mel na yoon wi la way juróom wu tedd wa am di Moustapha Mbacke jaaroon ak moom ndax bés Serigne Saliou Mbacke ñëwoon kër gu mag ci Serigne Amdi Moustapha Karim Serigne bi yëkkati Cheikh Ahmadou Mbacke Maawul Xayaat ci way juróom soxna Aysatu Silla jébbal ko Serigne Saliou Mbacke mu tee ko dénkaat ko soxna Aysatu Silla mu amee at mu jël sil ko boppam mel na ne tànk yooyu rek ci la Cheikh Ahmadou Mbacke Maawul Xayaat jaar jël tu tànkam bi mu tuddee Cheikh Muntaqa Mountakha Bachir jébbal ko turandoom ci bésu ziar bi gannaaw ubbi teg juma fatxul mubiin tuuba taybatul karim héliport maawul hayaat be ba jullit yi mbokki taalibe yi mbokki seetaankat yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen dig daje ci beneen jataay ngeen àndoon ak groupement Walxayaat communication asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا